Daouda Mbaye ñu ngi leen nuyu nga nekk présentateur fa nga xamante ne moom mooy ca Leral TV tey ji ñu ñëw fii ci appel bi euh, Seydina Limamou Laye mu nekk 142e bi ñu fekk la fi euh, tey ji euh, lan nga mën a wax ci bés bi. waaw jërëjëf soxna Asou di nuyu waa KS TV ci interview bi waaw suñu teewaay fii nag li ko waral rek mooy wuyu woote bi nga xam ni moom mooy Seydina Issa lay Euh, nga xam ni euh, képp kuy jullit rek euh, ci Sénégal ci tarixa boo mën a bokk ak ci kër goo mën a jóge rek daanaka teew nga fi ndax mooy li nga xam ni moom la Seydina Issa doon woote mu nekk benn unité unité des croyants mais unité des musulmans ñu nekk benn bañ a am ci wàllu bojjantu ko ci ci wàllu xeet yaakaar naa ne loolu bokk na ci li tax ñu teew fi ci liggéey lañu ñu ñëw aussi waaye itam Euh, dañ fay ñëw en tant que aussi tamit ay taalibe en tant que ay njaboot loolu itam euh, yaakaar naa ni moom moo waral suñu teewaay fii. Euh, tey ji lan la jullit di mën a jàpp ci ki nga xamante ni moom mooy Seydina Issa Laye. waaw li ñu mën a jàppee ci Seydina Issa Laye mooy rek la personne am na solo waaye aussi la personnalité moo ëpp solo parce que personnalité nit du jëmm jëmm ji dafa mel ni rek. maanaam nga tabax kër mais kër boo ko tabaxee dafa am lu koy taaral di nga ko raax raax kese doyul raax ci personnalité la bokk ndax boo ko raaxee dinañ ne ah kër gi am na jëmm waaye boo ko peinturé dafay gën a jekk waaye boo eggalee finition yi ba def décoration aussi mu gën a ti jekk donc loolu moom moo tax il faut que ñu jàng ci personnalité am waaye jàng aussi tamit ci message am bi nga xam ne moom la doon adressé à toute la communauté musulmane waaye doon ko adressé aussi à toute la jeunesse sénégalaise moom mooy lan jàng nañ ci moom bi mu ñëwee ci penc mi muy penc moo xam ne penc mu complexe la ndax pencum lébu ku ne xam na ni ñun lébu yi dañu nekk euh, askan woo xam ni neexuñoo convaincre duñu gaaw a nangu waaye boo xësee ba convaincre ñu bu ñu lay topp da ngay jàpp ne ñii sax ànduñu ak seen xel moo tax ku mën a convaincre communauté bu mel noonu ba ñeneen ñëw wàll si kon kooku dafa am mérite beneen bi aussi tam mooy message su jàmm ak li mu fexe ba réussir ko muy politique de la lutte contre la discrimination discrimination ethnique ou raciale mooy fexe na ba ci njabootam amul kii géer la amul kii géwël la amul kii lawbe la amul kii tëgg la ñëpp benn la ñuy wuyoo muy laay laay-laay boobu ñuy wuyoo nag bokk na ci seen centre d'intérêt boo xam ne moo tax ñu am benn union sacrée union sacrée boobu nekk ci ñoom dem na nag ba gën ko matérialiser waat à travers leur tenue muy tenue blanche yi li nga xam ne moom la ñuy sol ci yëre yu weex yëre yu weex yooyu dañu taamu sax juma bu jotee jullit bu ne nga sol yëre bu weex pour dem juma dañu ko taamu ci feet moo xam tabaski la wala korite ba ci màkka sax da ngay gis ne ay yëre yu weex la ñuy sol ba ci bis bi ñuy dugg aljanna yàlla ñu fa yàlla yóbbu ay yére yu weex lañuy duggee te jàmm lañu ñu fay duggee donc nag loolu bokk na ci liñ ci euh, mën a jàngatee en parabole ci li nga xam ni moom mooy li Seydina Limaamu Laay jàngale yan vertu la mën a jàpp ci moom. waaw vertu yi bokk na ci mën a muñ ndax euh, ñi ngi jàng ci. livre ak li ñu bind ci moom di wane ni bi muy soog a woote doon nañu ko adressé dafa tàggali ko ak sagoom doon nañu ko taxe lu ne ndax nga juddoo ci penc yaroo fa màggee fa xëy woote fa yàlla dina am ñoo xam ne dinañu nangu am ñu nanguwul kon wane na benn model de l'endurance et de la patience muñ ko ba tey lii fekk si ko mën nañ jàng ci moom itam yaatu ta yaatal yaatu ta yaatal mooy woote gi mu woote ñëpp ñëw wuyu si ko beneen bi itam fexe ba ay bokk di dund te kenn du xeeb sa morom fexe ba yombal li nga xam ni actuellement lu jafe la ci jeunes muy coalition des célibataires coalition des célibataires ak lànk bañ a sëyi lànk bañ a takk jabar communauté Layène réussir nañ ko ndax chaque année appel bu jot ñu gis mbooloo mu takku ñuy fas seen sëy ci biir appel yi yaakaar naa modèle bi Layène yi def ci maye soxna bu ko yeneen communauté yi defoon ci maye soxna kon yaakaar naa classe sama mbokku càlla heure bi am nañu borom kër ak ñeneen ak ñeneen kon yaakaar naa ni euh, loolu bokk na ci jàngat yi ak li ñu war a mën a jàngat ci bis bi. Oustaz Daouda KS mu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf ñu ngi leen di jaajëfal leen itam di leen ñaanal yàlla euh, li nga xam ne moom mooy euh, KS TV jëm ci kanam gën a yaatu gën a baax incha allah.